tóor asim ah, laay maa ngi door bawol Bawol final poids ñoom ñaar ñëpp ñu bokk dëkk parcelle waaye teewul day ñoo ngi fii du nuy rek gaay yi bëggee Lutte TV ITV ak BP Actu final poids léger Émile Franc Gomis Franc ak ki nga xamante ne moo di Ada Boy Bawol final poids Ada Boy Bawol Ada daw na jël ko mu moy Boy Bawol 1000 francs a gomis final poids lourd fii si Mbour Yaxya Diop ànd ak structure am ñu wax Fata production ñoo fi woowoon mbëri tegaloon leen 3 millions waaw mu nekkoon si ñaari drapeau Ada jël na tànk ba mu moy def nañ bëre lañ oh, oh, Ada Ada ak Franc waaw ay millions la kenn di ko maye fii amul combine aca arbitre baa ngi wax ñoom nee na leen bëre ko nombo jaan na ko ci kaw door si suuf doole doxul jàmm Emile François Gomis wala ma ne Mor Dega doom day Baye Saliou ziar naa la waaw maagal naa la Boucar Mor naka ci kawam yook siyaaka yéen a mu mel ni derbi la waaw non du derbi yéen ñaar du ngeen mayante non non duñ mayante ngeen mayante gars yi samedi prochain damaa daan damaa war a fayu ah, samedi passé moo la daan waaw non waxuma ko dara di ñaan yàlla ndam ci looy wax nii bëgg Mor waaw di leen bëgg ñoom ñëpp sama gars fii ba Casamance ñëpp maa leen di bëgg xam nga rek ma tuddee tur damay juum mais ñëpp maa ngi leen di bëgg ñu ngi la jaajëfal waaw di la bëgg bu baax ay ca final pas léger final diggante Mor Seye wala nga ne Mor Dega ak Siaka Fall Mor moo leen wan ginnaaw Siaka moo yore ngemb lu weex li ñaar ñoo bokk mbur waaye combat derby la Mor nee na mooma daanoon samedi tey damay fayeku mbaru baal saari koy fi Siaka daw na fii ko mu may Mor Seye ak Siaka Fall final poids léger fii si Mbour Fata production wala nga ne Yaxya Diop yegg na ànd ak structure am tegaloon fi mbëri 3 millions mu waroon nekk si ñaari drapeau final poids léger Siaka moo féete ndeyjoor moo yore ngeen bulu weex li moom ak Mor Seye wala nga ne Mor Dega Siaka Fall Mor Dega final poids léger Siaka Fall Mor final baa ngi noonu ñaari mbër yaa ngi noonu boo seetloo si taay ñoom ñaar neexoon nañu war nañoo war a mën a lu neex o oh, Siaka daw na jël tàng ba mbo mbooti Morsey mboot na ko mu may rëpp nañ jogaat Siaka Fall Morsey o oh, Siaka mbooti na ko mu may Siaka Fall ak Mor ñoom ñaar seen combat bi neex na Thiaka Fall Mor Seye Mor Seye ñaari mbër ngi ne tekk di déglu wante def nañ premier accrochage ku ne xam nga sa morom Thiaka Fall Mor nga ne Mor Dega rek borom Mbour ak Casamance ak li waa di dajeeg Thiaka Fall moom itamit dëkk Mbour mbaru di xaaloo bi Siaka Fall Mor Seye Mor daw na jël ko Siaka oo oh, oo oh, ñoom ñaar Siaka Fall Mor Seye Siaka ñoom ñaar ñaari mbër yi bëri nañu waay combat derby la Mor nee na daa bëgg jël revanche am nee na Siaka da ko daanoon samedi passé faa mu fayeeku Mor say Siaka Fall waaw animation bi nee nañ teg Mbayang Loum Maodo Faye Siaka Fall Mor Seye Siaka moo yore ngeen mburu weex li boo seetloo si taay moo ko sut Siaka Fall Mor Seye combat derby ñaar mu mel ni xamante nañu yàgg nañoo daje si géew muy combat derby Baye Saliou Ka nooy def sa ñaari mbër yi Siaka Fall ak Mor Seye Siaka Fall Mor Seye bëre kaw bëre loxo Siaka Fall Mor Seye arbitre baa ngi wax ak Siaka nee na ko taxawal avertissement verbal Siaka Fall Mor Seye Siaka Fall Mor Seye ñaari mbër yaa nga ca ba léegi rek Siaka Siaka Fall Mor Seye Siaka Fall Mor Seye final poids léger si Mbour Siaka Fall waaw combat bi aca bare bare guddi na dañoo bëgg a ñibbi Dakar su ma nee Mbour rek sama xel dem si Ibou Seye moom ak Josiane Thierry ma leen di nuyu de passage oh Mor daw na jël ko Siaka faxat ko ñu rëpp jógaat Mor Seye ak Siaka Fall oh Mor oh Mor ak Siaka waay waaye ñaari xale yi bëri nañu waay Mor war na ko ndombo Siaka bañ na Mor war na ko kott na ko Siaka bañ na génn nañ saako yi oh, ñaari mbër yi bëri nañ ñaari mbër yi bëri nañ waay Siaka Fall ak Mor so tot tot avertissement pour Siaka da ngay am avertissement pour sortie délibérée Siaka Fall am na avertissement Siaka Fall am na benn avertissement pour sortie délibérée arbitre bi sifflé waat na combat bi Siaka Fall Mor wala nga ne Mor Dega Siaka Fall Mor Seye Mor doom day Ibou Ndiol Siaka Fall Mor Seye final point oh ñaari mbër yi bëri nañ nee naa leen public bi lii lii la ñuy bëgg di gis ngir am satisfaction mi-temps bëri nañ cinq dañuy noppalu. Siaka Fall Mor Dega Siaka Fall Mor Dega deuxième round Siaka Fall Mor Dega deuxième round. o oh, Siaka kaw na ko daw jël tànk ba Mor bañ na Siaka jël na tànk ba Mor faxat ko oh, oh Siaka Fall Mor tega oh Mor daan na ko Siaka daanu na Mor joxoñ na ko ñett Mor Seye daan na Siaka Fall Mor Seye daan na Siaka Fall